ñu ubbi ci mbirum kooku ñu tuumal mbirum góor jigéen ñu sulli ko ba pare lakk ko ci Kaolack mu ngay wéy ci jamono ji yoon tegagum loxo fukki nit ak ñett juróom benn yi ñu gàll ci ñoom tuumal bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taal néewub Cheikh Fall ñaar ñi ñu ngi leen di tuumal lakk kër waa jooju ñuy jortu ne ab góor jigéen la juróom ñi des ñoom dañ doon manifester ci manifester goo xam ne amuñu ci ndigal di jàppale ki ñu dippee Rapathia te ñu jàpp ko ci biir l'enquête bi démb ci alxames bi nag ñu ñu jàpp ci l'enquête bi balaa ñu leen di déféré ci suñuy xibaar ci fukki nit ak ñett yooyu am benn ndaw boo xam ne ci benn vidéo moom da ci doon saaga njiitu réew mi waaye di sàkku jot ci moom ngir lakkee ko ni ñu lakkee niw ki ñu tuumal mbirum góor jigéen fii ci Kaolack di Cheikh Fall